asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki téléspectateur LCS yi la chaîne sénégalaise dellusiwaat nañu ak yéen ci seen émission bu mag bi leen muy yeete ñu nuyu leen ziyaare leen jiital ci nuyu bi fa tabarakallahu këru kilifa yi ci diine yi yépp suñu kër maam Cheikh na Cheikh Saad Bou suñu kër maam Cheikh Omar Foutiou Tall suñu kër maam Serigne Touba Khadimal Moustapha suñu kër maam Seydil Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu suñu kër maam eh, Ahmad eh, eh, Saïd Ba Madina Guna suñu kër maam Ahmad Ndiéguène Thiès suñu kër maam Abdallah Niass Kaolack suñu kër maam Amari Ngoone Ndak Seck Ceneba suñu kër maam Limaamullahi Yoof suñu kër maam Bukunta Ndiassane fa tabarakallahu jël nuyoo bi teg ko ci loxol xulafaawu ya ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla gën leen a kartanal ba li ñu fas yéenee liggéeyal seen maam yépp ñu mën ko def bi xormati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu mel na rek euh, incha allahu taala tey dañu war a jàng lu am solo muy taaya ni ngeen koy miine ci julli ngir mbokk mi sàkk woon ajjuma passé ci ñu prononcé ko ni ñuy taaya ndax moom ni mu ko doon prononcé bokkul ak ni ma ko prononcé woon moo waral ñu indi ko bind ko euh, jaaral leen ci ngir ngeen mën koo jàng euh, ku ko bëgg a bind itam sans dépend mën nga bind arab nga bind arab bi boo ko mënul boo koy traduire tamit nga jéema bàyyi xel bu baax ni koy prononcé nga mën ko prononcé noonu ndax fa tabarakallahu euh, dina ci gën a am solo mu mel ni moom mooy lii moom mooy taaya taaya nag mooy li ngay jàng ci boo toogee ci sa dernière rakaa war ko toog jàng ko sëlmal pour génn ci julli gi dinañ ko jàng itam ci diggante euh, ñeenti rakka boo amee ñaar nga toog jàng ko euh, jóg mottali sa ñaar toog ca fin ba jàng ko pour mën a sëlmal julli gi waaw su ko defee nag euh, nii lañ koy prononcé muy attaxiyaatu lillahi waaw attaxiyaatu lillahi ken du wax atayatu lillahi atayatu lillahi mel ni kuy laaj kaasu ataya loolu kenn du ko wax waaw attahiyatu lillahi la ñuy wax waaw te mooy selli nuyu selli yépp ñeel na yàlla suñu boroom ma wax leen ne moom la yonent bi nuyoo woon suñu boroom keroog laylatul israa wal mi'raj waaw bi yonent bi demee ba asamaani juróom-ñaar bi mu yeggee ci xadara borom bi subhanahu wa taala baat yi la ko nuyoo dégg nga attaxiyaatu lillaahi dégg nga de azaakiyaatu lillaahi waaw azaakiyaatu atayibaatu salawaatu da ngay def liaison ci euh, taa bi ak saad bi waaw atayibaatu salawaatu lillaahi waaw noonu nga koy waxee atayibaatu salawaatu lillaahi dégg nga de assalaamu alayka waaw assalaamu alayka jéem a mën a wax ah, loolu tamit baax na da ngay mel ni ku ñu kuccal ci biir ah waaw lettre boobu français mënu ko bind amu ko dégg nga moo tax euh, nga war a góor góor lu yow jullit bi pour jàng lettre arab yi loolu dafa am solo dana tax nga mën a prononcer ba lettre yi ni mu jaadoo parce que jàppal ne soxna mariyam gis nga lépp euh, looy jàng te niñ prononcé mënuloo ko sens bi moo bi firi léegi yàq ko signification la am léegi te grave waaw dafa jar a ni nga sa alphabet français A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z noonu nga alphabet wa arab bi alif ba ta sa jim ha ha dal zal ra zay sin shin sad dad ta za ayn ghayn fa qaf kaf lam mim nun ha waaw ya nga xamanteni li ñuy bind ci arab yep ci 28 lettres yooyu la nek motax alphabet wu arab bi mu epplé bu français bi ñaari lettres parce que bi 26 la bu français bi arab bi 28 la waaw xam naa sax dinañ ci góor góorlu rek dinañ ko jéem a jàngal lettres yi incha allah ñu àndaale ci parce que baax na itam waaw baax na wax dëgg yàlla kon euh, assalaamu alayka ngay wax ayyuhan nabiyu doo wax ayyuhal mais ayyuhan hë bi da ngay def liaison encore ci nuun bi ayyuhan nabiyu ngay wax waaw wa rahmatullahi encore wa rahmatullahi wa barakatuhu tuhu. wa rahmatullahi wa barakatuhu tuhu. nga alaina. alayna alaina. alayna wa ala ibadillahi salihina dengat encore tam liaison bi ci ha bi ak saad bi his saalihin wa ala ibadillahi saalihina dégg nga ashhadu ashhadu la ñuy wax kenn du wax asadu asadu boo ko waxee mooy gaynde te baatu ashhadu mooy maa ngi seede moo tax li ma la waxoon sànq dellusi si boo yàqee baat bi rek yàq nga signification bi waaw te moy bone bo waré wax ash hadu nga ne asadu moy gaynde waaw ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu ken du wax wahdahu wahdahu day woyef day légère ha bi day légère wax dahu wax dahu la sharika lahu wax dahu la sharika lahu dégg nga wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lii moom mooy taaya waaw ñu jaaraat ci attaxiyaatu lillaahi attaxiyaatu lillaahi dégg nga attaxiyaatu parce que a attaxiyaatu muy attaxiyaatu pas ataayaatu attaxiyaatu lillaahi azaakiyaatu lillaahi attayibaatu salawaatu lillaahi attayibaatu salawaatu alayka ayyuhan nabiyu doone ayyuhal parce que lii loolu grammaire la nuun bi dafa bokk ci xurufu shamsiya yi alif lam bi dañ koy indi mais doo ko jàngaale he euh, bi ngay jël daal di koy def def ko liaison ak nuun bi ayyuhan nabiyyu ngay wax assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu dégg nga wa rahmatullahi wa barakaatuhu assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihiina عباد الله الصالحين أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم. لولو موموي تايه فتبارك الله Euh, ñu doon ko jàng tey su ko defee rek ñu góorgóorlu bu baax allah allahu taala dinañ leen bindal xarf fii ñu di ko jàng ndànk-ndànk bu fekkee donte quatre lettres la ñuy am par jour ginnaaw émission bi lundi la ba euh, ba ba jeudi 19h euh, guddul nag temps bi dafa gàtt 12 minutes 13 minutes lay doon su ko defee nag mën ngeen ko di suivre diggante lundi mardi mercredi ba jeudi 19 ñu rediffuser leen ko sept heures ci suba gi maanaa sept heures ci suba lañ koy rediffuser fa tabaarakallaahu lu la ci rëccoon ci waxtu yi nga mën koo dabb ca sept ci suba incha allah ñu sant ñëpp gërëm ñëpp euh, mi nga googu sant suñu camara woman bi soxna Mariama si sant amadu Kebe moom mi cadré fii ba mu normal fa tabaarakallaahu su ko defee sant suñu monteuse soxna Aminata Fall madame Fall euh, sant soppe yëpp ñi topp émission bi yëpp di ñu suivre fa tabaarakallaahu ñu sant leen gërëm leen kon ki nekkoon ci waxtaan wi mooy seen mbokku daara oustaz Mor Diouf jox leen dig daje incha allah suba ak jàmm ci waxtu wi wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى